jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu ngi rafetlu sunu ànd ak yéen seen mbokk Talla Diakhaté Khelcom fii ci Touba Mbacké ci hôpitalu Cheikh Ahmadul Khadim di hôpital bi nga xam ni vraiment hôpital euh, bu am solo ci Afrique waaye fii ci Touba euh, Mbacké. Euh, en tout cas xam ngeen ne bi ñu koy inauguré président Macky Sall ci ab teewaayam waaye mboolem kilifa dina nekk fii ci Touba Mbacké. tey jii nag di bis bu am solo ci hôpital bi di bis bi nga xam ne ci leen ñuy tàmbali liggéey ci hôpital bi. suba tamit war naa am benn euh, consultation gratuite ci mbokki taalibe yi waa xam nga ne tey ji bi xëyee ay mbokki taalibe yi bëree bëri daje nañ fi ci ay gox yi fasanti ko surtout dongay Serigne Saliou Mbacke yi nga xam ni danoo yoroo ci ay daara yu wuute ñoo fi def ay ñaan waa ci ay kaamil euh, jàng xasida waaye kin jël hôpital bi teg ko ci loxoom muy docteur Serigne Moustapha Souran jiite woon opital ndaamaatu di mbokkum taalib moo xam ne vraiment yar ak teggin ak xam-xam rek lan xam ci moom ba tax na lii tey bu sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ci ak mbaaxam ak bëgg lu baaxam ak bëgg Touba ak bëgg mbokki taalibe yi jël hôpital bi eh, teg ko ci loxo docteur Serigne Moustapha Souran lii dañ ciy bég trop vraiment di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi tawéer waaye di ñaanal baax a baax a baax docteur Serigne Moustapha Souran lii doon yan bu oyof ci moom mu doon loo xam ni euh, day gën di kawe lim ci bëgg mu am ko ci te mooy rek mbokki taalibe yi beeg pañ mi gën a jëm kanam Touba gën a jëm kanam sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla fi yàgg te wér euh, kon nag 24 actu euh, di site internet bi nga xam ne vraiment mooy site bi amul loraange te bari njëriñ di buuru bépp site internet fii ci département bi tey moom laa taxawal xam naa ci kanam tuuti insha allahu daañu leen gën a toppal li fiy ruuse ci ay xibaar ndax ay kilifa yu bari ñu ngi leen di xaar muy sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadir ak yeneen i kilifa fii ci hôpital bii di hôpitalu Cheikh Ahmadoul Khadim tax ma ne défi bi euh, feneen la nekk ci lu dul infrastructure mooy tey hôpital bu mel nii boo xoolee infrastructure bi ak ni mu ni ñu ko tabaxee ni mu tëddee da ngay xam ne euh, tey euh, infrastructure ya nekk ci bitim réew muy Europe muy feneen boo fa demee amuñu lu weesu lii euh, bu dee équipement équipement yi fi nekk c'est des équipements de dernière génération équipement yu xarala la yoo xam ne wax dëgg yàlla am na ci yoo xam ne boo koy seet boo génnee Dakar daanaka dootu ko mën a defee feneen fu dul Touba. te loolu exemple bi ma ciy joxe mooy lu mel ne radiothérapie euh, ñaari appareil ñoo fi nekkoon muy bu Dantec ak bu Dalal Jàmm bii moo ko ñetteel te ki ñu fi indi itam foofee lañ ko tàggate te Dalal Jàmm euh, mu ñëw war ko yor euh, loolu itam xëy na radiothérapie bi ci saa si du mën a tàmbali ndax dafa laaj ay procédure ci formation bi ak également mise en route appareil yi dafa laaj temps te ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal bitim réew la ñu nekk waaye chimiothérapie bi nee na ma début juin dina ko commencé ak geneen yi nga xam ne mën nañ ko tàmbali def donc euh, looloo taxoon ma ne euh, ñun chance bi ñu am mooy am infrastructure boo xam ne tabax nañ ko ba tubarkàlla état du Sénégal def fi lu toll nii euh, loolu d'ailleurs moo tax ñu ne nañu woo population bi ñu ñëw gis ko ba xam li ne ci biir ndax romb bi rek doyul Euh, woo kilifa yi itam ñu ñëw ba gis li nekk ci biir euh, loolu bu ñu ko amee am équipement yu toll noonu itam ñun li ci des ci suñu loxo lay dese gannaaw bu ñu amee personnel bu doy personnel bu doy nag moom moo jafe waaye ministère de la santé itam def nañ seen kemtalaay kartan ndax tey boo xoolee euh, yónnee nañ ñu personnel yoo xam ne ñu qualifié lañu ay spécialiste senior yoo xam ne service bu ñu ne même bu ñu nekkee ñuy soog a tàmbali Euh, la ñu bëgg ci service mën nañ ko am ndax lay la muy laaj ca formation bi dinañ ko man te loolu yàlla dimbali nañu ministère taxawu nañu ci ñu ngi ci remercier monsieur le ministre de la santé euh, euh, défi bi ñu am mooy défi organisation service défi wu qualité ci liggéey bi ñuy liggéey défi wu accueil nit ñi fiy ñëw ñu jox leen seen wàccuwaay jox leen seen àq ak seen yelleef euh, euh, défi wu euh, maintenance su locaux yi fexe muy set fexe li nga xam ne mooy gaar structure te ñu ko fay bañ muy tilim beeg salte beeg yooyu yëpp te bokk na ci li tax ñu wax population bi ñu ñëw ñu gis barab bi mën leen sensibilité te loolu ñu ngi leen ci xaar yéen itam sensibiliser population bi ci nan la ñuy war a mën a nekk ci biir hôpital bi ci wàllu set ci wàllu disipline ak ci wàllu également euh, euh, teggin ñun li ci suñu wàll boobu ba léegi ñu ngi ci ndax personnel bi ñëwee ak léegi mën naa ne ëpp na ñaari weer te booba ak léegi ñu ngi ànd ak ñoom ci service yi di leen taxawu ñuy organiser service yi di leen taxaw ngir ñi war a def formation yi ci machine yi fi ne def ko nañu ko war a defee loolu dañ ciy veiller personnellement waaye fexe itam ba ñoom itam ñu former leen ci lenn li nga xam ne buñ ko xamee it ñu fàttali leen ko muy ci wàllu accueil. yaakaar naa ne looloo tax ñu ne dañu bëgg a tàmbali ndax loolu bu amul woon du ñu bàyyi mukk appareil yu mel nii ñu koy jox ay nit ñoo xam ne xëy na euh, maîtriser wuñ ko. Euh, ndax appareil yi suivant marque bi mën na changer ni koy utiliser mën nga ci laal benn bouton rek mu yàqu. donc loolu def nañu formation yi dans les règles de laar gis nañu ni itam wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi à l'aise ci manipulation appareil yi donc ñu ne euh, mën nañu démarrer. donc pour dellu si ci formation yi def nañu ay formation ci accueil te formation yi ña ko def ka ko def. Euh, yor na hôpital lu yàgg yore woon na structure euh, hôpitaux yëpp yilifoon na leen ay at euh, am na ci expérience dajaloo nañ ci waxtaan nañ ci tax na mu am diggante yi gën a ratax entre ñi nga xam ne ñoo war a seq hôpital bi ëllëg tax na itam nit ñi lu baree bare ñu fàtteeliku ko ndax day doon lieu boo xam ne day am partage d'expérience def nañ ay formation également ci wàllu qualité Euh, ci wàllu qualité ci wàllu euh, gestion de l'environnement ndax euh, képp koo xam ne service am mi ngi dox boo fa duggee ba xool ni mu organiser woo rek di nga xam ndax service bi tegu na ci yoon wala teguwut ci yoon yooyu yëpp tàggat nañ ci popula personnel bi fi ne am na nag ñu ñëw après formation yi te xam naa dina amaat ñeneen ñuy ñëw waaye ñooñee fu ñu matee benn lim rek dañ leen di jël defalaat leen cycle formation yi loolu li tax ñu koy def itam mooy xam ne Euh, hôpital dafa sensible xam ne itam euh, hôpital dara waruñu ko ci négliger xam ne itam euh, boo bëggee am résultat fokk nga am benn formation de base. jàpp nañu ne altine dina démarrer suba sax d'ailleurs am na ci dimanche ci samedi bi am na consultation gratuite bu ñuy organiser boo xam ne médecins yi dinañ consulter jënd nañu ay garab itam yoo xam ne dinañu mën a may population bi fii consulter ay garab. bu weesoo dimanche bi ñu organiser wuwaat pour altine ñu commencé commencé bi itam euh, hôpital du jour la ñuy commencé ndax structure du ay caaxaan euh, li ma doon wax ne boutique sax boo ko amee euh, code barre yi rek boo ko bëggee lijjanti pour dugal ko sa machine mën na def ñaari weer kon fokk nu def ko ndànk-ndànk li am solo mooy am foo xam ne bés bu ñu fa àggee lépp tàmbali te tegu ci yoon Euh, bu altine dañuy commencer consultation externe muy urgence di médecine ak spécialité médicale di chirurgie di euh, pédiatrie di gynécologie di urologie di ophtalmologie. di service. waaw yooyu la ñuy tàmbalee def consultation externe di def consultation externe ñi nga xam ne dañuy war a hospitaliser sax pour une courte durée ñu téye leen ba ngoon ñu bàyyi leen ndax. diggante bi faaw nu toog lu tolloog weer wala weer ak genn wàll pour que lu mel na restaurant bi mën a demare correctement am ko gañ a marché bi mën ñu toggal ñi nga xam ne fi lañuy fanaan mais également ñu am suffisamment de personnel pour que euh, équipe yi nga xam ne ñooy war a rouler euh, rouler normalement tey boo amee équipe boo yoo xam ne doyul nga ne damay bëgg def tout de suite euh, fonctionnement quatre heures sur 24 li muy indi ci gàllankoor mooy coono ba nga leen di teg dinañ dem ba la ñuy def dootul amati qualité te lu demee noonu lañ ciy daw waaye bu soobee yàlla fii weer ba bu soree ba sore weer ak genn wàll service yooyu moom dinañ tàmbali di fonctionner normalement mu am ci nag ay service yoo xam ne lu mel na Grand Brûlé muy service boo xam ne bu doy waar la yaakaar naa ne euh, principal laa dégg fu ko fa am maa ngi bëgg dem sax gëstuji ji ko euh, foofu formation bi dafa laaj kañ nga xam ne moom la ñuy tabb mbur mu yore service bi day war dem bitim réew defi formation bi dina njëkke nag jaar principal yi nga xam ne tàmbali ne ko ndax dégg naa ña fa ne ña ngi koy def def bu mucc ayib waaye ci contrat yi ñoom dañu war dem bitim réew defi formation donc yooyu mën na jël temps mais yeneen yi nga xam ne ubbeeguñ ko problème mu personnel la dañu bëgg consolider li ñu ubbeegum ba mu dox normalement ñu commencé yi ci des di leen ubbi par benn benn waaye jàpp nañ ne fii ak fin d'année bi au moins service yëpp dinañ mën a tàmbali bu amee bu ciy des daal grand brûlé bi xëy na moo lay doon te booba itam la mu laaj moo koy waral. évaluer nañu besoin en personnel bi euh, ci service yi nga xam ne ubbeegum nañ leen évaluer nañ yëpp sax déjà mais hôpital bu mel nii à lu tolloog junni nit mën nañ fi liggéey waaw donc euh, li nga xam ne nag moom moo am mooy. di dox par ndànk-ndànk waaye foo teg sa tànk xëy na dootoo ko fa tegati di jëm kanam waaye li ngay def doon lu amal njariñ nit ñi te loolu boo ko bëggee il faut itam li ngay def nga teg ko ci yoon mu am qualité ba bu ëllëgee duñ ne kat fii la waroon di yem wala fee la waroon yem